cosaanu Yesu Christ ni nga xamante ni noonu la Yesu cosaanoo lii mooy cosaanu Yesu Christ sëtu Daawuda sëtu Ibrahima Ibrahima moo jur Isaaxa Isaaxa jur Yankoba Yankoba jur Yuda ak i doomi Yuda Perez ak Sara ci Tamar Perez Esron mi Bayu Aram Aram Aminadab Aminadab Nason Nason Salmon salmon jur ci rahab doom ju tudd bowaas bowaas am ak rut obed obed jur isaayi mi baayu buur bi daawuda daawuda moo jur suleymaan ci ki nekkoon soxna uri suleymaan jur robowam robowam abiya abiya asaf asaf yosafat yosafat yoram mi baayu osiyas osiyas jur yowatam yowatam akas mi baayu ezekiyas Ézéchias Manassé Manassé Amon Amon Yosiyas Yosiyas jur Yekoñaas ak i doomi baayam ca jamono jañu defee yawut ya jaam yóbbu leen Babilon ba ñu leen yóbboo ca Babilon Yekoñaas jur Salasel Salasel Sorobabel mi baayu Abiyud Abiyud Eliakim Eliakim Asor Asor Sadok Sadok Akim Akim Eliyud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 si toftal juddu bi Yeesu nii la Yeesu Christ juddoo bi ñuy mayee Mariama ndeyam Yuusufa waaye laata ñoo ànd gis nañu ne dafa ëmb ci kàttanu xel mu sell mi kon Mariama laata mu doon ànd ak jëkkëram di Yuusufa seetlu woon nañu dafa ëmb waaye ci kàttanu xel mu sel mi Yuusufa jëkkëram nag nekkoon na nit ku jub te bëgg ko woon weer bëgg ko woon a weer mu nar a xàccoog moom ci suturam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 noonu yuusufa yeewu yeggali soxnaam naka ko malaakam borom bi sante woon waaye àndul ak moom ba keroog muy mucc jur doom ju góor mu tuddee ko yeesu loolu la ko malaaka bi santoon ni bu mu xàccoo ak mariama ndaxte doom ji nga xam te moom la ëmb ci kàttanu xel mu sellam la ko ëmbee bi maria bi yuusufa yeewoo mu def li ko malaakam borom bi waxoon mu ànd ak jabaram nekk ak moom gunge ko ba mucc mucc doom ju góor tuddee ko yéesu ñaareelu saaru téereb Macë bi moom la ñuy dégmal ñu ne ay boroom xam-xam ñëw nañu màggal ci Yeesu bi nga xamee ne yéesu juddu na ci Betleyem ci diwaanu Yude amoon na ay boroom xam-xam ñu jóge penku ñëw Yerusalem booba ci jamonoy buur bi Erod la woon ñu ne ana buur bi juddul yawut yi ndaxte gis nañu biddeewam ci penku te ñëw nañu ngir màggal ko donc ñooñu ay nit la ñoo xam te ne ay boroom xam-xam la ñu woon ñooñu bu ñu xoolee bu ñu daan xool asamaan xool jant bi wala xool biddéew yi mën na nañoo xam ay xew-xew jaare ci yooyu noonu donc si lañu gis benn biddéew bu fenk ñu xam ni ko am na buur bu judd loolu moo tax ñu jóge fu sore penku ñëw ngir ni dañuy màggal ci yeesu ndaxte gisoon nañ ni biddéew wuti woon na ak yenn biddéew yi bi ko eret buur ba déggee mu daal di jaaxle moom ak waa Yerusalem gépp mu woolu nag saraxkat yu mag yépp ak xutbakat xeet wa laaj leen fu almasi bi maanaam Kirist war juddoo ñu ne ko ca Betlehem ci diwaanu Yude ndaxte lii lañu bind jaarale ko cib yonent yow Betlehem ci diwaanu Yude du yow yaa yées ci njiitu Yude ndaxte ci yow la njiit di génne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 buy tekki ni yàlla ganesi nañu naka malaaka ba waxe woon tamit mariama wax ko yuusufa doom ji nga xam te moom la ëmb ci kàttanu xel mu sell la ko ëmbee gis koy ay boroom xam-xam jóge nañu fu sore ñëw ngir màggal si xale boobu waaye buur bi ceddawu leen ni leen bu ngeen demee ba gis fi xale bi juddoo ba mu wóor leen ñëw leen ngeen xamal ma ko ngir man tamit ma dem fa ngir màggal ko waaye dëgg-dëgg du loolu moom mooy li nga xam te moom moo nekkoon ci xelu buur bi bëggoon na fa dem waaye yeneen ñoo sababum loolu mu bëggoon dem defi ji foofu dinañ ko gis xëy na ci sunu yeneen su ci yeneen jàng yi nga xam te ni moom mooy ñëw yusufa ak mariama gàddaay nañu jëm réewu misra fàttaliku leen buur bi Hérode neewoon na boroom xam-xam yooyu bu ngeen demee ba gis fi xale bu juddoo ñëw leen ngeen wax ma ko man nit ma dem màggal ko neewoon naa leen ni leen buur bi loolu du woon pas-pasam demoon seeti xale bi leneen moo ko sababoon loolu moo tax aay bi pàcc bi ñu tuddee ko yuusufa ak mariama gàddaay nañu jëm réewum misra bi nga xamee ne boroom xam-xam ya ñibbi nañu benn malaakam borom bi feeñu yuusufa ci gént ne ko erod mu ngi ci tànki wut xale bi ngir rey ko jógal nag jël xale bi ak ndeyam te nga daw jëm misra toog fa ba keroog ma ma koy wax malaakam borom bi feeñu na yuusufa ni ko jógal nga jël mariama ak xale bi ngeen daw dem dëkku misra misra moom lay Égypte ngeen dem làq foofu toog fa ba mu wax leen que ndaxte buur bii di Hérode mi ngi wut rey xale bi Hérode mooy ki waxoon boroom xam-xam yi dem leen seet ko bu ngeen ko gisee ngeen dellu si wax ma fan la nekk ngir man it ma dem màggal ko waaye gis nañu dafa amoon yéene dem foofu ngir rey xale bi loolu moo tax malaakam borom ni yusufa jógal nga jël mariama ak xale bi ngeen daw dem misra toog fa ba ma wax leen ko yusufa nag jóg jël xale ba ànd ak ndeyam làqu ji misra ca guddi ga bi ko ko malaakam borom bi waxee yuusufa daf ko topp li nga xam te ne loolu la ko wax mu jóg dem yóbbu xale bi ak ndeyam dem làqu ji misra ca waxtu yooyu ca guddi googu mu toog fa ba erok faatu noonu am li borom bi waxoon jaare ko ci yonent bi mu naan woo naa sama doom mu génn misra bi erod gisee nag ne borom xam-xam yi nax nañu ko mu daal di mer lool mu santaane ñu dugg ca Betlehem ak la ko wër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 ñu ngi dem ngir màggali ji ko ba mu gisee ni ñooñu ñëw ñu wax ko fa xale bu juddoo mu xam ne dañ ko nax mu daal di mer santaane ñu dem rey xale yi nga xam ne am na ñaari at jëm suuf ca Bethléem ak la ko wër yépp ñibbisi nañu réewum Israël borom bi neewoon na Yusufa jógal nga jël xale bi ak yaayam ngeen dem toog fa man dinaa leen wax waxtu bi ngeen war a ñibbisee bi nga xamee ne Hérode faatu na benn malaakam borom bi feeñ Yusufa ci gént ca Misra ne ko ñi doon wuta xale bi dee nañu jógal nag jël xale bi ak ndeyam te nga dellu Israël yusufa jóg nag jël xale ba ak ndeyam dellu Israël waaye bi mu déggee ne alkelawus moo doon erod baayam ca nguur yu de mu ragal fa dem yàlla artu ko nag ci gént mu daldi dem diwaanu Galilée mu ñëw nag dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nasaret noonu am la ñu waxoon ca xale ba jaare ko ci ca yonante ya bi ñu naan dees na ko tuddee nasareen nasareen maanaam ku juddoo wala ku yaroo wala ku màggee nasaret donc lii mooy ñaari aaya yi nga xam te ñaari saar yi nga xam ne moom lañ jukkee ci téereb màcc te mu bokk ci injil comme ni ma koy waxoon ci njëlgoon rek màcc doonoon na kenn ci fukki taalibe ak ñaari doon ànd ak yéesu te ab juuti la woon da daan dem di fayeeku ji ca marché ba ak ca bérébu liggéeykaay galag yi maanaam juuti comme ni ñu ko xamee léegi moom ci kàttanu xel mu sell mi bind na li nga xamante ni loolu la ko xel mu sell mi xamal ci ki nga xamante ni moom mooy ci juddoom ci ni mu màggee ak ci ni Yeesu doonee mbokk ak doomu aadama yi maanaam sunu maam Ibrahima sunu maam Daawuda ak ñeneen ñeneen ba ni ñu yegsee ci ki nga xamante ni moo doon bàyyi ji leen di Yuusufa kon ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen dox ndax daje ci beneen bés ci yeneen ay bés ngir mën a wéyal jukki bi nga xam ne am nañ ko ci te jagleel ko wala ñu tuddee ko sunu yaakaar comme ni ma ko waxee rek bu ngeen amee ay laaj mën ngeen bind bu ngeen amee ay laaj tamit mën ngeen jël ci numéro yi ngeen bind woote dinañ tontu seen laaj wala ñu waxtaan ak yéen ci li ñu jàng jël ngeen jëf ne leen yàlla barkeel sàmm leen yéen ñëpp ñu ngi leen jox daje beneen yoon.